mbokk yi topp ci Daara Koki TV noo ngi am mbégte ñëwaat tey jii sof sunu waxtaan wi ci waxtaan yiñ tàmbali woon ba weeru koor wi teroo ak léegi mu jëm ci e, sun mag ñi wala magi Afrique soowu jant yi rawatina ñu gën a ràññeeku ci liggéeyal lislaam ak liggéeyal xam-xam gannaaw bañ waxtaanee euh, bindkat bu mag boobu di boroom xam-xam boobu nga xamante nii àddina bépp xam nañ ko ci xam-xamam bu yaatu ak ay mbindam yu am solo muy Ahmad Baba Tumbukti tey jii nag ñu wàcc si fii euh, ci Sénégal fas yéene waxtaan ak yeen ci daara ji nga xamante ni mën nañoo wax ni euh, ci liñ xam mooy daara ji gën a yàgg fii ci e, réew wala fii <coughs> euh, muy daara piir e, sun maam alqaali Amar Fall e, sos ko bala ñoo ñëw ci alqaadi Amar Fall nag ñu leeral benn sew-sew boo xamante ni mën naa am bari na lu muy ni ay juyooloo wala ay wuute ci diggante ñiy gëstu ak ñiy bin ci taarixu Sénégal ci mboorum Sénégal euh, rawatina li aju ci lislaam euh, ñiy gëstu ci wàll lislaam fii ci Sénégal Afrique sow jant daanaka <coughs> dëppoo nañ ni euh, onzième siècle moom dixième siècle jëm onzième siècle fekk na fi lislaam di tollook cinquième siècle hijri ndax euh, Bakri bi nga xamante ni ci bindkatu arab yi gën a yàgg la ci téereem boobu Masaalik wal Mamaalik bi muy bind almuravid biñ ñëwee euh, ci euh, dex gi maanaam gox biñ ñëwoon gox boobu ni mu koy leeralal diggante <coughs> géej géeg dex gi gox boobu ndar la joxe ndar gi ci Sénégal euh, mbindam boobu tamit lim ci lim ciy leeral mooy am na buuru jullit bu fi nekk buur bu fi nekkoon bu ñuy wax war jàbbe doomam joon na ànd ak muravid yi di di xeex ak di jihaad waaye loolu firndeelul ni ñoom muravid yi ñoo fi dugal lislaam maanaam lislaam ji ma ngi fi woon loolu moom daanaka ñoom eh, bindkat yëpp d'accord nañ ci dëppoo nañ ci am nañu ñu ne lislaam ji sax bi mu ñëw daanaka mën nañoo wax ni ci septième siècle eh, ci gane ak àdduna Seydina Isa di tollook premier siècle hijri bi maanaa arab yi bi ñuy conquête Afrique noire bi ñu ubbi Afrique Afrique eh, Afrique du Nord dañ ni ñoo ñu doon ko ubbi ñenn ñi ñoo jàll ba àgg fleuve Niger ñeen ñi jàll ba xaw a jege Sénégal gannaaw gi ay commerçant yoo xam dañ doon yaxantu euh, ñi ci ëpp di ay arabo berber nee na ñenn ñi dañoo jóge gox bu ñuy wax barqa fee ca penku lii bi ñëw fii ci Sénégal di yaxantu ñooñu nee ñoom ñoo fi dugal lislaam ak euh, ala itixaal ak moo xam lislaam dafay dugg ci euh, première siècle siècle hijri bi wala ci cinquième bi Euh, li wër daal mooy dixième siècle bi gannaaw gaña gane àdduna Seydina Isa di toll ak cinquième siècle hijri maana euh, fekk na fi lislaam waaye nag ba tey jii liñ amagul mooy diggante boobu ba daaray Pirj bi muy so bi muy sosu ci dix-septième siècle liñ xamagul mooy yan daara wala yan université yoo xamante ni dañ fi doon jàngale lislaam yoo xam ne ñu ngi won Sénégal liñ xamul tamit ana ñan ñooy mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di bind ci lislaam di eh, di di jàngal nit ñi ñooñu mën nañoo wax ba tey jii ni amuñu benn archive wala benn manuscrit boo xam ne mën nañoo wax ni diw ak diw ak diw ñoo fi nekkoon yore njàng mi yore xam-xam bi donte yenn famille yenn njaboot yi dañuy tudd seeni maam yoo xamante ni mën naa am dem na ba jamono booba masalan di tudd seeni maam yoo xamante ni ay woroom xam-xam lañu woon ay sëriñ lañu woon amoon nañ ay taalibe di jàngale ak di yar euh, boo ñëwee fii ci Njaambur waa euh, euh, waa ndaam may ñi askanoo ci loo ci ci ndaam yeeg ci Louga yëpp dañuy tudd seeni maam yoo xamante ni mën naa am ñenn ñi ngi woon ci quinzième siècle ñenn ñi quatorzième siècle ñenn ñi treizième siècle di leen tudd di tudd naan ay borom ay borom xam-xam lañu woon ay nitu diina lañu woon waaye nag seen daara yooyu ak seen eh, seen seen jaa ak téere yoo xamante ni bind nañ ko ba tey jii yooyu man amaguñ ci amaguñ ci amaguñ ci lenn loo xamante ni mën nañ mën nañ koo teg bët boo demee fee ci mbaakol tamit seen maam yi bu ñu tudd seen maam yi dañu tudd seen maam yoo xam ne mën naa am ñenn ñi demoon ñu ngi woon ci quinzième siècle ñeen ñi quatorzième siècle muy ñi sant jaxateeg tureeg sillaak xummaak yooyu ñooñu nga xamante ni euh, wér na ni ci empire Mali lañ nekkoon nekk fa ay borom xam-xam ndax boo demee ci téere ab taarixu Saadi sant yooyu danga ko fay gis bu baax a baax a baax ñu nekk ay sant yi xam-xam yore woon xam-xam bi foofu euh, dañ naan bi empire Mali yi demee ba faible wala demee ba daanu ci la ñooñu ñëw Sénégal ñëw ñëw ba agsi fii ñenn ñi yem euh, ca goxu Casamance beeg ak ak Tambacounda muy ñi nekk ay jaaxanke ñenn ñëw ba Saalum nekk ay Saalum Saalum ñenn ñëw ba Kajoor nekk ay mbaakol mbaakol waaye eh, benn wala yenn famille lay doon eh, yooyu yëpp daal ay ay données la yoo xamante ni gëstukat yi yor nañ ko dañ koy eh, ngir yooyu tamit ñi nga xam dañuy faral di jëfandikoo histoire maanaa source orale yi muy suñ mbokk géwél yi yooyu yëpp dañ koy nettali waaye nag ba tey jii daal euh, amaguñu benn document boo xamante ni dañuy leeral woroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekkoon Sénégal ak kilifa yi fi nekkoon Sénégal di jàng ak di jàngile yore ay daara yu mag euh, jiitu xaali Amar Fall njëkk xaali Amar Fall di fee di feeñ njëkk mu amul am na moom waaye nag amaguñ ci amaguñ ci benn benn benn document euh, mas nañoo fekke benn colloque boo xam ne euh, Dakar lañ ko doon defee boo professeur euh, Thierno Ka hafizahullah professeur Thierno Ka booba ma nga fa woon mu daal ni bépp étudiant boo xam man daal ni man maay encadré ay thèse maanaam école doctoral booba université Dakar bi maa ko yore département arabe waaye bépp étudiant boo xamante ni indil na ma projet de recherche boo xamante ni day indi ay données day firndeel ay woroom xam-xam ak i daara yoo xam ne ñu ngi woon Sénégal rawatina ci Kajoor ak Njaamur ak Bawol ak Saalum njëkk Xaali Amar Fall di di feeñ képp ku ma ko indil ah, argumenté ko ma ma ma encadré ko mu mu mu ko mu nekk thèse doctorat waaye ba tey jii nee na gisagul ku ko ku ko andil lool ala yetti xaal kon euh, euh, waxoon nañ ni euh, tukkikat yi maanaam surtout occidentaux yi ñoom rawatina ñi nga xam ne ñëwoon nañ Sénégal ay Damasto ak yooyu portugais yi ñooñu dañuy nettali ni ñoom ñenn ñi quinzième siècle lañ fi ñëw dañuy nettali ni bi ñuy ñëw ci waaxi Sénégal yi ba dugg biir senegal Sénégal rawatina ci buur yi fi buur yi nekkoon Kajoor ak Jolof neen daan nañ fa fekk ay boroom xam-xam yoo xamante ni dañoo nekkoon ànd ak bu buur yooyu eh, di ay ñenn ñi di ay jàngalekat ñenn ñi di ay kaadi di ay attekat ñenn ñi di ay imaam waaye ñoo ñi ci ëpp nee na ñoom ay móor lañ ñoom ñi doon tudd nee na boroom xam-xam ñu fekkoon ñi ci ëpp ay móor lañ mooy ay naar lañ ay arabo berber lañ dóorsi nekkuñu woon ay africain ay négro africain ah eh, ñoom loolu lañuy loolu la ñuy wax xaali Amar Fall mii nag nga xamante ni moom lañ ni moo sos daaray Pire kenn la ci askanu paaleen gi nga xamante ni ñoom ñoo doon euh, buur yi ci kajoor ñoom ñoo doon ñoo yoroon nguuruk kajoor ndax waajuram ñu koy wax paate euh, dañ na naan waajuram doomi bàyyi Amari Ngoone Sabel la Amari Ngoone Sabel nag ñépp xam nañ ni euh, ci moom waajuram wu góor ci la kajoor jële indépendance am total indépendance jolof indépendance am total jële ko jël ko ci jolof moom mooy waajuram euh, dañuy wax naan tamit moom ma ngi gane àdduna ci fin seizième seizième siècle ganewul àdduna nag kajoor fuuta gane àdduna ndax dañ ne waajuram euh, da doon ay conflit dafa amoon ci biir famille bi maanaam usral xaakima famille royale bi maanaam conflit yooyu mën naa am moo waral waajuram gàddaay jóge kajoor dem fuuta maanaam bàyyi nguur gi daal dem fuuta topp xam-xam bi jàng ak jàngaleek euh, euh, foofa la amee woon soxna soxna soosa mooy waajuru doomam ji ñuy Amar Amar Fall kon Amar mu ngi ganee àdduna foofu fuuta fa la jànge xam-xam jàng fa alquran jàng fa xam-xam léeg-léeg sax da ngay gis yenn bindkat yi naan jàll na gànnaar wala jàllul gànnaar alaa yetti xaal daal moom fuuta moom jànge na fa fa fa la jànge li ëpp ci am njàngam kon fuuta amoon na ay daara yu fa nekkoon njëkk xaali am rafaal di ñëw dañoo xamul nag daara yooyu dafa bokk ci daara yi tukkikat yooyu doon wax ni ay naar ñoo ko yoroon wala ay daara la yoo xam ne ay tukkulóor ñoo ko yoroon euh, waaye li gën a lëng moom mooy mooy ay tukkulóor ndax xaale Amar bi muy ñëw Kajoor nee tukkulóor la déggoon maanaam olof déggu ko woon waaw maanaam la déggoon man naa am sax loolu moo waral boo demee ba daaray piir ji eh, lim gënoon a ràññeeku ci wàllu alxuraan muy boole yeeg yooyu da gis ni boole yi. Euh, daanaka dañ daan boole euh, tukkulóor ak olof euh, nee nañ tamit pir même piri moom ñu doon wax nit ñi dañ ko daan seetaani ndax booba ba muy firi booba olof ji leerul olofom leerul mu koy firi muy firi firinu koo xamante ni olofom mokkul bu ko defee olof yi dem di ko seetaani ñen ñi di ko seetaani nga xam ni daanaka léeg-léeg day indi dañ ci day eh, seetaanuk lekk léeg eh, ree lay doon waaw koo xam ne déggul benn déggul aw làkk bu koy wax wala bu ciy jéem a wax wala mu ciy jéem a firi alquran eh, ni mu koy firee <laughs> noonu day day reelu loola tax ñu ni ñu bari sax moom mu ñu daan wax ñi seetaani prix ma ba ñu seetaan ga mën naa am sax wut xam-xam taxul woon waaye wéttaliku man moo gënoon a moo gënoon tax foofu la jànge kon ba euh, jàng lim war a jàng lépp gannaaw gi nag euh, ci la ñibbisi kajoor bi ñibbisee kajoor nag euh, ñëwaat ci kër baayam fi nga xam ne fi la baayam fekk baax bi fi ñëwee am na buur bu mu fi fekkoon ci buuri kajoor yi buur boobu moo ko moo ko bi moo ko bi mu xamee ni mbokkam la moo xamante ni dafa jàngi woon ba am xam-xam euh, ñi koy wax buur damel ma xuraj ma ma ma xuraja kuli nee nañ moom la fi fekk bi mu fi fekke euh, mu xam ko xam lim bokk moom xam tamit li ko tax a jóg muy jàng ak jàngale moo ko ubbil walla moo ko sancal fee mu sanc ca pir di fa jàngale alxuraan sañ fee ci sañ a xoor ci eh, nee vingt huit foofa nag am na ñu fa fekkoon wàddeen yaa nga fa woon ak ak ñi sant baan ba ci ñi sant ndóoy am na benn bindkat walla griot sax la nga xamante ni lu ëpp ci histoire pir maanaam traditionnel bi ñu koy wax Demba Demba lamin Diouf moo ko nettali euh, euh, da ko nettali bi mu ko nettalee am na ku nekkoon ministère de la culture moom moo ko doon moo ko bind euh, loola mu bindoon téere la nag téere la boo xamante ni histoire Pire ak histoire Xaali Amar Fall téere bi nag rëyul téere bu bu ndaw la daanaka ay trente jëm xam naa ay quarante cinq cinquante page lay lool waaye bokk na ci téere yi gën a yi gën a wér wér yi nga xamante ni moo gën a wér ci histoire Pire ndax Demba Adi Demba Lamine Diouf moom dafa boole woon xam-xam euh, xamu cosaan muy xam-xam ngéwal ba pare jàng tamit moo taxoon moo tax ay riwaayaatam ay ay version nekk version yoo xamante ni yu yu dëgër la téere bi sax euh, at yu mujj yi lañ ko lañ fexe ba jot ci téere bi am daanaka édition yi njëkk ya ci la jeexe woon ba sun benn mbokk bu ñuy wax Ousmane Diaw euh, ca Égypte euh, traduire na téere bi traduire na ko arab indi na version arab parce que génnee téere bi ci ñaari version yëpp nga xamante ni xët wenn wi day nekk arab wenn xët wi mooy euh, xëtu français bi nga xamante ni ci lañ ko ci lañ ko bindoon kon incha allah ñoo ngi leen di jox dig daje. ëllëg àggal fas yéene àggale waxtaan wi nga xamante ni dañ ko tàmmali woon mu aju ci e, daaray pér ci ak xaali ak sun maam Qaadi